abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV dal leen ak jàmm mbokki internet yi dañuy dikkaat nag ci kàddu yi ki nga xam ne rek moom mooy Pape ale Niang moom mii nga xam ne nag miin nañ ko lool mu daal di dellu siwaat nag ci li nga xam ne rek moom mooy actualité bi nga xam ne rek moom la ñuy jaaba jonge ci réew mi ci jamono yi ñu toll nii mën nañ ne ñu bare bari daal di ci yàbbi yëy wante kat ni ki démb moom mi mu daal di si dellu siwaat di Pape Alé Niang ci ay kàddoom nag ci imam bi nga xam ne rek gannaaw daal nay def li nga xam ne rek moom mooy xutbaam ci grande mosquée euh, bu Dakar ci teewaayu ki nga xam ne rek moom mooy président de la république Macky Sall yëkkati ay kàddoom nekkat képp ku nga xam ne rek faatu nga ci manifestation yooyee safara nga jëm moom mii di Pape Alé Niang kenn du ko tere mu wax li nga xam ne rek moom mooy xalaatam wante kat lañ doon séntu ci moom ak fi nga xam ne rek foofu la daanu see euh, dafa nekk lu nga xam ne rek lu wuute wuute wuute la ndaxte kat en tant imam ñun ñi ngi doon xaar mu daldi di ñuy recadré waat maanaam tegaat ñu ci yoon wi siraatal mustaxim te tamit wax ñu lu nga xam ne rek lu diine nangu la bu fekkente ne ci wàllu politique la sax mën nañ ne diine daf saa am lii di gisin bu nga xam ne rek bu yaatoo yaato yaatu la ndaxte kat ñaar yooyee benn mënta dem bàyyi sa moroom ndaxte kat bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk mbir minimel tax kii di Pape Alé Niang daal di ñaawluwaat kàddu yooyee nga xam ne rek comme ni ko sénégalais yu bari daal yamu sax mu daal di xamle këne bu fekkente ne woon sax sax wax nañu rek loo xam ne lu xel mën a nangu la ndaxte kat fi réew mi toll metti ba passé metti nga janoo ak euh, ki nga xam ne rek moom mooy euh, président de la république nga waroon a waxtaan ak moom kàddu yu dëgg kàddu yu nga xam ne rek mën nañu ku ko dégg nekkat nopp dalootina nga nekk fa di wax yeneen yu nga xam ne rek maanaam amul bopp amul génn mbir minimel tax ñu daal di koy naqarlu ba fa mii di Papa Alé xam ne kàddu yi ni mel gannaaw nag ni ki démb bu mu génnee rek dénoncé li nga xam ne moom mooy naqaram ak métitam comme ni nga xam ne rek noonu la ko sénégalais yu baree bari dal di defee di leen di jaajëfal leen wax